yow bi bëgg tisi bu rafet wala nga yor boutique bëgg a jënd jaayaat demal Pikine marché Zinc fekk fa waa Njaay Jesner. bi ni baxa la bien cristal la. rafet na fees na motif bees tàq la aussi jaune or bi. am na ay couleur yëpp bi rouge sang bi la mais motif yi bokkul tissu yi ba pare per yi benn bi ni mooy moo champagne couleur bu rafet tamit bu tegu si temps ni mooy ci tiktok motif bees sax la garam bu bleu ser ak musoor col moo nekk nii yëpp arrivage bees la li ci bëgg rek defal te fii ci njaay jesne yoo nag nii ay 3 mètres ay 4 mètres ba 5 ba 6 lii mooy jesne supermanium gold bi laser 1 mètre 60 sa dessin yi rafet na trop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 Njool Lim Njool moom mooy borom ngeen bu ñu secondes ordinateur mbër a Biro Sassar laa ilaaha illallaah daan na ma xalaay ci ay secondes seen ak benn boy ngañ balaake na ko daan na ko wala daan na ko ngañ seen daan na ko de Leena Johnson naa fa seet njaga ñaaw ci Sele Mele Grand Mbagnick ak Béni Boy Parcelles wala bu Ndingler le surveillant général wala ñu wax proviseur mais eh, tiet ordinateur ca Mamady Ndiaye ak benn boy Mamady def na tànk booba <laughs> Mamadou Ndiaye door na ko suuf. ca Ndiakhsène ak benn gën Ndiakhsène eh Ndiakh daan na ko. waa ilaha illallah wala arbitre. ndaanaan yaa ngi nii Mady Ndiaye Sélé bëgg waa Fadiouth bëgg waa Pamtuma Ahmed Sangoor borom États-Unis maa ngay bëgg Omar Ndara Ndong taalibe Sëñ Saliou bi maa ngay ziar de bëgg ñoom Toldo Aliou Gaye naa ko Sow Oumar Sow siyaar naa la Amady Ndiaye Sélébélé Yeah, yeah, yeah, yeah,

बाबा डिजाइन से ले मेरे Senegal Thank you. Yeah. Aja, amit sila wat na sobabi. Siya kapal ganda abet isma. wande ka njoto maga ngen ka saga mar jël na tàgg ba lay jël na tàgg ba lay juuf dem na siyaaka fan lay juufe eh. lay juufe eh. nena ana ponkal doon njaag seen na Ognadar Pierre Marie. Pierre Marie moom mooy baram ngeen bul fer bi. ordinateur moom mooy baram ngeen bul rouge bi. ay ordinateur. waay ay Pierre Marie bul def lool. ordi sakara la. bul def loolu Pierre. seen pare rek.

مانه پيا مھجو مريا ميو dañ seen gën a célébré ordinateur Laye Diouf jànda demi-finale Laye Diouf moom mooy borom ngeen bulu vert ordinateur Modou Faye borom docteur Biro Sassar dara Amadou Cissé maa lay ziar Xurur kay naa ko def ba jaaw kay naa ko Aliou Sow kay naa ko Omar Sow maa ngi lay ziar Ahmed Sangot Omar nga ala ndog ordinateur daan na laa jur ordinateur daan na ko de Ngagne Sène Ndiack Sène Ndiack moo ñu woon gannaaw Ngagne lan jàkkaarloo Johnson bu ñaga ñaaw Ndiack Sène bu Somone ñu bëgg waa Somone daa abi semaine maa ngi lay siyaar bëgg sant Armando bu Ndiack Sène bëgg naa la de Boubacar Seck waaye Birane Ndour borom nee na Fall Joal dafa amee bu Diouf Boulaye Ndiaye maa ngi lay bëggee di bëgg Aliou Gueye naa ko Sow docteur Biro Sassar Jackson Ngagne Sène waaye di bébé ma Simo Dieng Mamadou Diop borom Ndoumbouy maye Koor Diouf futur maire de la commune de Touba ak ñoom Mbathio Jokal Diouf borom Simom Dieng Ahmed Bala Senya borom kër Mama Lamine ba léegi borom Ngéñen la Samari Ngom monsieur le ministre ba lay siyaar de kenn du yow waaye Abdou Ngom le grand agent immobilier borom Mbour Moussa Mbodj le policier borom Diakane Barka ngañ seen njàkk seen ay doom bàyyi ngeen nuuna mbagu taano lañ seen seen waaye diggante le grand promoteur waa Jappoo production bëgg naa leen de ay ndeysaan di bëgg Lamine Frigo borom Joal ñoomin ko ñoomin ko frigoriste nekk Joal Fadiouth bëgg sunu gara bu baax Bira Fall borom saalu yëkkil ko ngeen Pierre Marie lu xew. ak seen ngañ acca lamb ji amoon problème léegi Pierre Marie moo fi doon yëngal jaxase lamb ji pot lamp lamp yi fay mais heureusement dellu si waat nañ ay amateur lañ. seen njàkk seen. kon la ay cinq ans mais dix na benn avertissement njaag am bu ñu neer de. lii contact la may sax entraînement. pause. acca deuxième round ngañ seen njaag seen. Wow wow wow. bu jot pare loolu tool si la waaw waaw waaw xanaa dige bi sax war na am ay ay wéef ay cent mille si direct bopp bopp bopp billaay bu ma seet yaay ji yaay ji wàññi yaay ji wàññi yaay ji wàññi ay ay cinq francs ay dix francs Zambro moom am ak man ay wéef cent mille man sama niveau Ndañ seen Ndiak Sène am seen tam mënta waaw dañ leen jàpp seen seen seen woo seen daal ñu ñëw wax te leen numéro bi leen ko ñu Pape Latir Diouf bi ne nii kay damay indi bi yaa joxe sama numéro si commentaire bi Come on. Diggante Ndiak Sène. et Babou. Ngagne Sène. ak Baye Diallo. yow final yow final demi final bi daw ngay ngay ngay tirage. foto foto foto a ñibbi rek arbitre. acca Lamine TV am kuy laajte Kële USHB la bëgg. kooku waa kooku waa fan la. yow ah, daa nekk bi sawar rek day

ngañ seen njaag seen nee sagi rek waaw waaw nee sagi njaag seen ngañ seen njaag seen daal xooxa poids njaag gënal loxo bi bopp bi ngay génne bopp bi loxo bi loxo bi gënal loxo bi Kozak troisième round baa ngi noonu Ngagne Sène Ndiack Sène

ñàkk seen ngañ seen waaye Malam Mayu. Arbit Togol. Hop jambu. Hop jambu. Kancing jaksa.

dañ seen na dañ seen njàkk di ko mat Jackson Gansen waaw lii du ñëwee xanaa ñun bëgg ñoo ñibbi ngeen seen jaar seen ko wax ji wax leen ko ah. waaw. demi final bi sifflé waat na. soixante-dixième sifflé. maama naa ma pesa nga nu ngel naa. soixante-dix sifflé. est-ce que du ma def noonu. combat bi bëri nañ lu mat vingt minutes. animation la animation bu amul waaye day mel ni waaw waaw mais li ñu waxee léegi gars yi dañ leen a partagé ak ñoom waa arbitre daa doo xool. yéen a ngi soog a xam si animation si làmb la bokk. instant yii su ma yoroon baabul ma tegal leen animation. arrêté na combat ba de ñu xool ba xam kan lay mooy bii mooy round. Jack senin de güzel. They sat down and Santana Angleterre moo wër de ay É Ja, dat is een hele

Jackson. Jackson.

ngañ seen njaag seen lamb jaa ngi noonu ah lamb ji demi final njaak seen ak ngañ seen ci la yem parce que ñoo tolloo avertissement ñu yokkal leen temps temps ba jeex ñu yokkalaat leen temps ba jeex ñu yokkat laat leen temps temps ba jeex ñu yokkat leen temps ba jeexaat ba soixante-dix mille fois kenn xamul li arbitre lan la a ah, léegi nag lamb ji tas na lamp yi fay na ordinateur moo taxawoon final ordinateur Modou Faye moo taxawoon final ngañ seen njaak seen di bëri demi final waaw arbitre yi atte arrêté combat bi kenn xamul lu ñu arbitré fi mu ne nii lu ñu xaaruñ dem jël njaak seen ba xool xam lu muy wax. non non ngay seen seen gën a bëree waaw loolu la ñu wax man wax de bu la wax tegoo lu leer grand Ndiaye tam question la rek na man man naa li mu war a bëre. sa waay da lay téye jël sa jël loxo mi teg ko sa kanam. dina bu ku nekk ñaata avertissement. non ku nekk benn avertissement la am. Ah. waaw ku nekk benn avertissement. waaw ngeen dem ñaata gaaw. waaw waaw ëpp na ëpp na sa 30 minutes. mais moom comme que moom dafa dem. dem war a jox victoire quoi looloo jaar. am na daa daw. looloo jaar quoi. lan moo am dëgg am dëgg. ñu ngi wax njàpp. dafa liggéey dafa am doole yoon. waaw waaw waaw waaw waaw waaw di bëggee waa son bu baax ama seen fay barke siir naa ma mafia bi tey daa am doole mënti dem xam nga damay topp man tey bu ma bu ñëwee sax fekk ma daanu si tànk yi dama découragé uh-huh. barke siir naa Mouhamed mais loolu moom motivé quoi uh-huh. parce boo bëggee dëgg-dëgg sax ki may digal dama woo dama génn lamba yi gën na lamba uh-huh. mais mënuma dem bàyyi fi gars yi ni maa ngi déplacé saman ba joal comprendre nga ma expliqué dama ne foog ma toog retrouver loolu quoi mais am seen fay comprendre nga ma expliqué maa ziar bu baax naan na kontaan naan mbir la ah acca lamb jaa ngi noonu ah ji demi final njaak seen ak ngañ seen ci la yem parce que ñoo tolloo avertissement ñu yokkal leen temps temps ba jeex ñu yokkalaat leen temps temps ba jeex ñu ñu ñu temps temps ba jeex ñu temps ba ba fois xamul li li arbitre arbitre lan la ah léegi nag lamb ji tas na lamp yi fay na ordinateur moo taxawoon final ordinateur Modou fay moo taxawoon final ngañ seen njaak seen di bëri demi final waaw arbitre yi atte arrêté combat bi kenn xamul lu ñu fu mu nii lu ñu atte xaar jël njaak seen ba lu muy wax. non non ngay seen ngay seen gën a bëree. waaw loolu man du samay bu wax tegoo lu leer grand Ndiaye nag question la rek na tontu. waaw mais mais a bëre. sa waay da lay téye jël sa jël loxo mi dul ak waaw waaw ëpp na ëpp na sax 30 minutes mais moom comme que moom dafa dem dem war a jox victoire quoi looloo jaaru am nga daa daw looloo jaaru quoi dan wax da dëgg am nga mais gars yi tamit si direct bi ñu ngi wax njàpp dafa liggéey dafa am doole yoon bu di bëggee waa son bu baax xam nga seen fay barke Muhammad mafia bi tey daa moo mënti dem xam nga damay topp man tey bu ma bi ñëwee Muhammad mais loolu moom motivé quoi parce que boo bëggee dëgg-dëgg sax ki may digal dama woo dama génn lamba ji gën a beneen lamba mais mënuma dem bàyyi fi gars yi xamante ni maa ngi déplacé saman ba

arbitre rek ah wala boobu fële yàlla la quoi waaye mais man moom aw ma si débat quoi aw ma si mais tey yaa ngi taxaw di xaar sa xaalis. waaw ah non taxaw di xaar xaalis moom yàq taamu naa ko miin naa ko quoi. waaw <laughs> xaalis boobu problème waaw ah, mais nag su ma sañoon làmb ji yegg. yegg waaw xam nga parce que làmb moom euh, bu nit di seetaan làmb moo jël làmb ji moo ko doon mais làmb yoo xam ne kenn jëlu ko kenn xamul xamul waaw métti na na parce ngay seen ak noonu ba final bi euh, demi final sa laay wax problème yi amee ñu gis nga bëree yaag njaax seen bu samoon demi final boo xam ne toll na ni match football ay plus de quarante minutes arbitre ne tey na bi waaw bu ñëwee ma génn ko keneen jëlaat souffle bi waaw lii lañ ma def joof yor démb waaw te man xele laa la mu laa yaakaar hmm. Euh, damaa wusi damaa de ak kilifa. Mhm. yaa ngi may dégg. waaw kii ma génne ko point. bu mu mhm. bu ma ko génnee. Mhm. keneen ñëwaat. waaw jëlaat suuf bi bu ma ko keneen ñëwaat jëlaat suuf bi six fois. tu tu tu jël mënul am. doy na waaw démb dama koo def ak Paul man te bu mu téyee ngëbi bi. ñu suuf la Paul bu téyee sam bos ñu bàyyi. waaw daal lii nag. waa CNG war nañ ciy jël seen matuwaay. waaw. waaw waaw <laughs> yaa ngi wax pare garaaw garaaw mu ngi yàq suñu waxtaan wi la <laughs> mais nga ñeneen waa CNG nañ ci jël seen matuwaay dëgg la metti na waaw tey moo man en direct laa nekkoon ay junni nit di ma seetaan mais demi-finale bi dama koy wax te dee ngañ seen nii moo gañe njaax ku ko waxul complice na waaw tamit bu ma yoroon Thank you.